Fall mu général Martin Fay, le ministre de la force armée euh, installé mu Disney, installation de manière sobre avec euh, par rapport à l'installation, de la gendarmerie nationale mu encore un corps d'élite euh, mais on a vu aussi sous le général Moussa Fall mon mm-hmm. corps bi affecté par rapport à les événements qui se sont succédés de la am rupture du mok sénégalais euh, attente yu ñuy xaar euh, si euh, général Moussa Fall déjà il faut rappeler que avant le président de la général bi ñu installé ko autant pour moi dañoo jëlaat rek gendarmerie delloowaat ko si li nga xamné mo nek armée nationale waaw d'ailleurs sax loolu euh, noonu la musa demee gendarmerie corps d'armée la musa voilà c'est décret boobu depuis 76 xaw ma c'est des militaires c'est des paramilitaires voilà gendarmerie euh, pompier mhm. militaire corps maanaam euh, corps corps armés la ñu appartenir léegi liñ boo xoolee réforme yi ci defoon en fait c'était dafa tijji mhm. voie bi à la gendarmerie nous avons plus de plus de généraux. voilà parce que gendarmerie je pense que les généraux c'était général 4 quatre la ñu ou les six. Mhm. léegi dafa am ñaari commandement ne nga que général. Mhm. pour mon ko diriger alors qu'avant avant y nga un grade colonel moy l'école des officiers. Mhm. ak xaw ban en tout cas capitaine Touré indi indiloon na ma ci ay éclaircissement yu amam solo période mhm. bobu mhm. donc yokk na nombre de général yi ñu jóge ci 4 xaw 6 yokku de 2 en tout cas yokku na de 2. amna tamit policier bu ma mës a na ma. Mm. xaw créer confusion par rapport ak ñom da fay indi prérogative wu gendarmerie léegi dafay dugg ba ci juridiction wu pour zone yi nga xam police ñoo fa doon.

beneen axe bi veille alerte prévention. Mhm. axe bu mujj beneen axe bi surveillance investigation beneen axe bi protection intervention. Mm. xam nga lii boo ko jëlee en fait da ngay gis mooy dinaa réconcilier waat. Mm. population bi ak gendarmerie. nationale. parce que bu dee commandement coordination conduite mooy nan lañ leen yan ordre lañ leen di jox. Mm. yan conduite lañ leen di sant ak nan lañ koy coordonner loolu dina tax ba sénégalais bi appréciation bi mu jàppoon ko foog ne xëy na gendarme yi dañuy yeew rek ne leen dal leen ci askan bi mm. appréciation boobu dana dañ mm. donc da ngay gis ne moom mission centrale réconcilier population bi la ak FDS yi particulièrement la gendarmerie mm-hmm. mu nekk lu amam solo ma dégg ko nag démb dañ ma doon laaj ci wàllum accident yi ma ciy suggérer loo xam ne Mauritanie da ko def na Sénégal da ko war a def ngir mën a prévenir ci accident yi mm. Mauritanie bi accident yu bëri président Aziz dafa créer benn brigade spéc benn brigade spéciale. Mm-hmm. boo xam ne prévention routière rek ko tax tuddee ko Moussara. Mm-hmm. brigade la boo xam ne ñoom loolu rek a leen tax a jóg mm. ñuy monter ay check point par cent mètres par cinquante ñii ay deux ñii ay oto. Mm-hmm. ba nga xam ne am na benn effet dissuasif ci chauffeur yi ba ku nekk rek yaa ngi sóor. nooy dawalee ba doo def erreur ba ñu jàpp la wala ba bind la benn contravention. c'est mu nekk affaire bu am solo parce que effet dissuasif la boo xoolee jamonoy émeutes yi ni ñu génnee woon gendarme yi ak policiers ci mbedd bi jox leen tenue entre émeutes yi anti émeutes yi tax na ñu ragaloon nit ñu bëri ñu génn taal. Mm. effet dissuasif boobu boo ko defee créer brigade spéciale boo xam ne dafay prévenir ci. la prévention routière l'accident, il mhm. dana tax chauffeur bu est c'est vrai donc si vous avez dana ko créer lu mel dana appliquer zéro tolérance ci wàllum tali bi vous mhm. dama ko saluer vraiment. Mhm. ndax ñun alerte créer lu mel donc si autorité wax am nañ idée saluer en tout cas dëkk yu bëri def nañ ko Mauritanie bi rek def na ko te réglé na problème mu accident yi bu baax a baax a baax foofu. et l'avenir du général Moussa Fall Cheikh Ousmane loo yaakaar ne lan la war a doon parce que am na ñu bëri jàpp ne le général Mouta Moussa Sar war Moussa Fall warut a génne si noonu de façon vraiment euh, naturelle ñu bàyyi ko mu dem këram mu toog wala sax euh, euh, généraux yi ñoom après l'exercice de leur fonction da ngay gis aussi ñu exercer beneen réew pour ne pas dire ñu génne leen dëkk bi ñu diplomatie. bon xam nga d'habitude les généraux. surtout boo nekkee généraux yenn yenn niveau yi wala mhm. yenn bànqaas Bo paré dañ lay def ambassadeur. de la dëkk non seulement ñooñu c'est des gens yo xam ni fi ñuy àgg ci niveau d'information. ak sécurité nationale dafay. ils sont pas dans l'information ils sont dans les renseignements. voilà donc <laughs> donc donc donc donc Moussa Fall je pense que comme coutumier dañ koy ambassadeur sauf si poursuivre. sauf si sauf si le président décide de faire autre chose mooy comme li nga wax nii maanaam li fi ci ay poursuites judiciaires wala enquête même bu poursuite amul temps que enquête mën am mais man li ma gëm. dañ koy affecté génn ko dëkk. loolu laa la bëgg a wax est-ce que aussi euh, mbirum euh, généraux yi fii Sénégal. dafa sensible pour ne pas dire partout dans le monde c'est sensible. xam nga li tax mu sensible. parce que boo toppee euh, général bi. tey munoo bàyyi yeneen. non dafa sensible subalterne yi aussi ah. tey Moussa Fall ay nit a mën ci gendarmerie. voilà voilà. bépp général boo gis wala colonel. am hmm. na ses affiliés. ci biir hmm, hmm. turu bi nit ñoo xam ne peu importe lu nit ki def wala luñ ko jiiñ lui seront toujours fidèles fidèles gendarmerie trop dispositif sécuritaire mm. particulièrement sécurité président mm-hmm. je pense que les gens ne sont pas. on n'humilie pas en général parce que euh, euh, sécurité frustration après au sein des troupes parce que mm-hmm. les ci loo wax lu dul c'est le meilleur waxoo li am. Mhm. loolu nag ay appréciation la yuy ute homme de troupe dafa am nu muy fonctionner par rapport ak ki ko defar man li ma gëm mooy nañ ko nommé génn ko. te aussi euh, man je rejoins euh, quelque part euh, ku mel ni comme Dame aussi mm. mënuñoo topp ñenn. Mm-hmm. bàyyi le président de la République Macky Sall. non foofu moom d' accord nga Macky Sall it. on n'humilie pas son président. ah comment ça. Macky Sall même même égard bi ñom Moussa rek la man xam nga hmm. financièrement. financièrement créer commission d'enquête. Mm-hmm. lancer ay commission lancer ay mandat d'arrêt. Mm-hmm. recouvrer bien bi nga régime bi dañ ko particulièrement moom président à partir de ce moment euh, rogatoire yi ngay def ci institution financière yi banque ak yooyu. Hmm. Macky hmm. pour mu def transactions financières dafay jafe à tel point que day suur ndax bu jaaree ci benn banque danañ ko nangu wala duñ ko nangu li mu defoon les Macky dafa PDS financièrement. Hmm. dafa ñëw xool financer PDS ci et autres. <coughs> ko c'est vrai PDS activité activités yi dafa taxaw. Mhm. loolu boo ko defee paralyser nga Macky Macky sera beaucoup plus concentré à survivre que jéem la attaquer. Mhm. Macky da est koy neutraliser financièrement nga disloqué mais est-ce que neutraliser aussi un président boo sortant en plus nekkatul ci dëkk bi mhm. un président boo xam ne mun nañu wax euh, tamit mu ngi euh, protégé mun nañ ko waxe noonu ben puissance bu nekk comme la France aussi mhm. est-ce que loolu aussi dina yomb cher Ousmane mën na mën na yomb parce que Macky Sall non seulement entre bo jélé Macky Sall ak intérêt wu Maroc ci réew ak intérêt France ci réew mi Macky poids plume la ci moo tax ma gëm ne président Diomaye bu jugee Côte d'Ivoire xam nga dem na fa ba pare. waxoon naa la fi. waaw Nigéria la ci war a teg ak Rabat. moom Rabat. waaw parce que da nga war a xamal Mohamed Sis na ko li Macky Sall nekk sa réew non seulement du du xajamal suñu relation waaye du Macky nga doon jëflanteel Sénégal nga doon jëflanteel à travers sa personne isolé Macky Sall. parce que fi mu toll Maroc ñi ngi xool yan yan pas la Sénégal di posé jëm vers ñoom. te pays bu am solo la ci wàllum bànk yi fi nekk mën nga ne loxo Maroc daf cee feeñ bu baax a baax a baax. si donc foofu mën nga ko fa teg tànk isolé ko nga xam ne Macky survivre lay gën a tal ka yàqal la Macky loolu la def Ablaye daf ko étouffé jàppul Ablaye dafa étouffé Ablaye xaalis bu hmm. dugal ci réew mi ñu récupéré après Wade survivre la gënoon tal ka attaqué Macky. Je vois. Mhm. Euh, mais par rapport à la visite, euh, euh, même ça,